Mes chers compatriotes, ma décision, longuement et mûrement réfléchie, est de ne pas être candidat à la prochaine élection du 25 février 2024. C'est ce que wax veux mandat 2019 c'est mon deuxième et dernier mandat ça ne veut pas dire que je suis droit mais c'est ma décision populaire. C'est ce que liggéey ñoom ñaar. en daal lenn moom xam naa ko moom ci élection yi moom Ousmane at at at at moom kenn ay dem. kenn dem élection kenn ay dem ñaar mën nañoo demoon à la fois. bisi waxati naa de. waaye kenn bu demee moom njëkkul nga koo wax. <laughs> tey nga dëggalaat ko ne ñoom ñaar kenn moo ciy dem élection. kenn nay dem kenn toog kuy gaañe nag. na leen na woo ñaan ñëpp. bolé ci gouvernement bi. déet ko defee. Sénégal na melni paré dé barki alcorane zénib dañ dañ xam nga sëñ bi dañu yag nak maag yow motax tax li nga wax jëli naa ko dé né nga ñom ñaar kenn nay dem. Ah. ba paré nga ni ki gëñé na wo ñom ñaar. na ñor ñoo ñoo ñaar ñu gouverner. ah mais Sénégal ay sama xel mi naxum. way way way nañ nañ oo nañ ñu gouverner sha allah. <laughs> parce que ay problème xam-xam lañ yàlla moo leen may. sëñ xam sëñ bi sëñ fo foofu fo ñaan tel ñu ñaanal. ñaan bi fo suñ suñ fi xuusee. Hmm. xamna di nga wax ba wax lo bëggul wona wax boobu dama fay dama fay teg sama loxo mhm. ndax bëgg bëgguma <laughs> ma bëgg nag sëñ bi ngay dugg ci te surprise dina am ci élection présidentielle wax naa ko deux ans avant surprise dina am bu rëy koo xam ne lu amoon 2012 surprise kuy doon président du mos a doon président a doon président mooy doon président ah kay Sonko mooy doon président ah, bu leen neexee ngeen wax Sonko doon président bi ba tey bu leen neexee man daal wax naa sànni bu li ma bu ñu waxee bi ne kon Macky Sall moom c'est ah surprise bi bu dikkee ci réew ñu bëri nañ teewal seen gémmiñ parce que euh, suñu borom moo ñu yor moo ñu moo ñu nekkal fii waaye am na ay jaam yoo xam ne ne am na sëriñ suñu fi fi ñu yu nga xam ne Macky Sall moo koy nekkaat maanaam même Sall benn sax ci ay waxam ne na gis na ñetti kees mooy trois mandats ah am na ñeneen ñu am na sëñ Modou Kéemaan borom borom Kéemaan surprise bi nee na Macky day faluwaat bu ñëwee ci moom deux avant wax naa surprise bi surprise bi nag maa ngi au auditeurs yi ñu defee ñëpp nañ xool surprise bi may wax deux ans maa ko bu kenn taxaw nañ ne moo ko wax surprise maa ko njëkk wax. waaw falu premier ministre maa ko wax. waaw waxoon nga fi ne am pël buy falu pël gis naa la ah ah Ba pël la xam nga man gis naa say vidéo nee naa dama la xool doog lay invité. nee nga gis nga ak pël bu am ndombay tànk buy falu kon Amadou Ba la woon. Euh, surprise bi dana amaat. te incha allahu rabbi yàlla nañ fi yàlla bàyyi bés man du ma moomu waxoon naa ko. man moom xamoon naa ko la. Ah, lépp lu ma yàlla di wan. dama koy wan ku mu doon président de budul Sonko fii. incha allah ah, Karim lay doon ah, man na ne rek du ma tudd. wala Amadou Ba premier ministre. mais l' essentiel daal waxuma loolu de man dama ne daal l' essentiel surprise daal dana am moom ci réew mi. surprise moom bu mag dana am ci réew mi. te surprise bu ñëwee kilifa gi jël leen bi ngeen bind lii ngeen nota. kilifa gi waxuma kilifa gi.